lancé waat aussi un message à mon ami et frère le maire Bara Gaye di wax ne c'est le premier magistrat de la ville ñun ñëpp tey moo ñu boole njaboote période yu toll ni bu amee ñun ñëpp dañuy daw làqatu ci ginnaawam mais moom mu ñu tiital mooy li attaqué état di wax état def fi dara état deful ni état dama koy wax ne mom lan la def ci commune bi te ñing koy xaar ndimbalam parce que ñing nga xamante ay duñu éliruñu mais fi lañ dëkk ñu ngi door indi suñu ndimbal tay indi ko ci commune bi te du tay commencé nañ ko bu yàgg moom nag fu ñu ko doon xaare mooy état indi na fukk moom mu indi juróom parce que mairie am na budget mairie am na recette municipale te tamit ay commerçant ñi doon fay juuti ci nekk ci marché yi tey ñoo ñu ngi seen kër liggéeyatuñu tey eh, kër yi fi nekkoon ku ci nekk boo soxla dara këyit bi da mairie bi da ngay dem fay tey ñoo ñëpp liggéeyuñu daf leen war a jàppale mais du xaar du ne rek état deful état deful état parce que gis nañ tey Sénégal am na 554 communes commune boo gis ba ci Oré Fondé mairie yaa ngi yëkkati di dimbali askanam moom nag ñu ngi koy xaar ci wax ne na bàyyi takk rajo yi ñu ngi koy xaar mu ñëw ci koñ yi dimbali nag te tamit loolu am na fii ci aussi au niveau de population afia moo tax ñun kii comme fii la ñu dëkkee fii la ñu pour dimbali nit ñi ngi koy rappelé waat moom ñoo utiliser moyen maire yi bañ ko xeex a xam ne état ñëw na pour dimbali sénégalais moom mu jël dimbali parce que instant bi nekkatuñ ci parti nekk nekkatuñ ci politique politicien ñu ngi ci lan Sénégal moo soxla ku ci nekk ñi da nga war a sa bopp te ñu ngi nekkat aussi ci weeru koor gu am solo ñi nekk ay jullit te nit ñi soxla nañ dimbal bi dañ fiy ñëwaat encore une fois encore wax nit ñi ne président de la république mu ngi seen ginnaaw mu ngi leen taxaw mais ñi en tant que doomu gox bi lu ñu am yëmbal moo ñu ko gënal lu ñu am banlieue moo ñu ko gënal. Mm-hmm. moo tax na nit ñi bu ñu soxlaa dañuy fàtte suñu bopp ñëw dimbal nit ñi parce que bu solidarité amee ku nekk ku mun dimbal sa morom ndóol gi dina dina dina mën a waxuma mu jeex parce que yàlla suñu boppam dajul mais bu bu ñëpp defee comme keneen ak keneen def. je pense que tey tey dina tane. mais moo gën moo gën xasante bi gàjjante bi parce que nit ñi taluñu ko.